Dans la salle des banquiers du Palais de la République, ils étaient venus comme à l'accoutumée remettre les cahiers de doléances au chef de l'État Macky Sall en ce 1er mai, jour de la célébration de la journée mondiale de la fête du travail. Après les avoir écoutés tour à tour, le président de la République Macky Sall répond aux doléances posées. dañ leen boole benn indemnité pour yokk ko ñu tuddee ko indemnité spécial complémentaire dont les montants varient de quatre-vingt mille à trois cent mille par agent selon les catégories waaw loolu nag sëñ bi bu amee dëgg yàlla war man foogoon naa dinaa toog ñetti at kenn du fi indi cahier de doléance li ngeen war a xam mooy te xam ngeen ko sax liggéeykat yi dafa am solo ci réew parce que ñoo yor production léegi nag béykat yi ñi nga xam na ne amuñ solde sàmmkat yi chômeurs yi ci gox yi ak gox goxaan yi ñu war leen toppatoo. Dans cette rencontre entre les centrales syndicales et le président de la République, la plus grande revendication était l'augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail dans les entreprises. Mais le chef de l'État a décliné par un niet catégorique qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire en ce moment. jaratul sax ñu fi indi ay plateforme pour loolu mënatuñ ko parce que ce n'est plus possible atteindre nañu le maximum qu'on pouvait faire le gouvernement reste clair sur cette question salariale on ne peut pas aller au-delà Cependant, l'une des demandes dont le chef de l'État a répondu favorablement est celle de l'application de la Convention 183 et 190 de l'Organisation internationale du travail pour la revalorisation des droits des femmes dans les entreprises. lu jëm ci fanna boobu maa ngi woo jëwriñ bi yor wàllum liggéey ngir mu saytuwaat bu baax a baax xoolaat li nga xamante ne moom mooy taxawaayu jigéen yi ci biir bërëbu liggéeyukaay yi mu ñàkk am benn xaj ak seen comme ni ko convention 183 bu OIT bëggee maanaam organisation internationale du travail foofu tamit ñu xoolaat bu baax a baax ni ñu mën a rataxale li nga xamante moom mooy convention 190 bu atum 2019 ci lu jëm ci wàllum bundu xatal ak xoqatal bi ñuy def jigéen yi ci seen bërëbu liggéeyukaay seulement dans le monde du travail.